di leen baalu àq waaye tamit di leen àq di am mbégte ci teew gi ñu teew fii nag tey te teew fekk suñuy bokk ak suñuy xarit ak suñu bokki taalibe bokk na ci bokk yi sëñ Mourtala bu Cheikh Abdou Lahad ak sëñ maam Cheikh bu sëñ Fallou xam naa gannaaw sëñ Mourtala ngi moom dama koy ubbi rek jox ko mu àggale ndax war naa mën a wax ci diine ji mën naa war a wax ci réew mi war naa mën a wax ci tarixa bi ndax bàyyam murid la te sëñ Mourtala mi ko yore itam kon ne xam na ko fi mu féete woon diine jeeg sëriñ bi ci wàllu liggéey te jonjoo woon naa ak moom ba xam lam bëggoon xam lam bañoon te njaboot sëñ Tuubaa yëpp genn la koo ci dund rek mën a dund ci des sonn nag bari na waaye li leen sonal mooy loolu rek koo xam ne mag da jur ba noppi mag yar la nga bëgg a dox aw doxinam sa doxin boobu tu mu jamono foog nga sonn foog nga sonal nit ñi waaye ñu xamee ko noonu rek xam la ku li nag dañuy wax tuuti rek loo xam ne dama koy seere loo xam ne maa ko waxaloon sama bopp te ñëpp wax nañ ko ñëpp dañoo wax ashadu an laa ilaha la di ay jullit kon diine sañ nañ cee wax lu koy defar waaye sañ nañ cee wax ci lu ko yàq wax aslamtu nafsi tam di taalibe sëñ Tuubaa yoo xam ne tariixa bi luñ ci xam luy defar sañ nañ ko wax waaye luñ ci xam luy yàq sañ nañ ko wax dooni Sénégal yor dante Sénégal di citoyen ci réew mi kon réew mi itam kasaalika lu ci yàq war nañ ko yàq war nañ ko wax foofu la ñuy waxee diine nag dafa am ay pied muy muy ñeent pied wala juróom mooy tabi jiitu mooy saadatu an laa ilaha illa allah boobu bis bi nga ko waxee ba bi nga fi jóge ak ay aju ci moom amul senn saa yoo xam ne daa a jóg ci sa xol wala soo bis ba nga ko waxee ba kenn nga fi jógee moom du jóg ci sa xol ndax bu ko jëlee rek nekkatoo jullit ba ca topp itam mooy julli iqaama salaat julli bis bu set la waaye du waxtu yëpp nag boo seetee bis bi li nga ko yëpp yëpp boo ko calculé du ëpp waxtu ak ñeent fukki minute ndax julli ak morom ji fi ngay fi ngay fi ñuy noddee ba fi ñuy def def ñaar fukki minute juróomi ñaar fukki minute nag mooy waxtu ak ñeent fukki minute yaakaar mooy waxtu ñeent fukki yaakaar naa. waaw kon wàccut kenn moom itam batis mooy mooy mooy mooy mooy mooy koor koor at mi benn yoon la ci doon wàccut kenn xanaa ki feebar wala ki tukki te su ñëwee da koy fay bu ci topp mooy asakaat nat asaka kooku nag nisaab boo amee nisaab dalaa war soo ko amul waru la aj màkk nag benn yoon la ci sa dund bi farata mu ne satan ilay sabi lañ la wax kooku man ko ne benn yoon koy def sa noonu mu demee nag yoonu murid itam ni la demee daa am lu ko sosoon te lu ci jëkk mooy ak gëm ak pas-pas ak bañ ak nangoo liggéey ak jaamu yàlla garab nag la ko saxal lu ne moo koy suxat yooyu nag suñ ci bëggee bàyyi dara dara sunu murid day fay des kon nañ doole suñu positif doole suñu jaayanteek ak sëñ Tuubaa li mu bëgg ci dëkk bi ñu koy bëggale li bañ ñu def ko bañ le lii ko def mën ngaa mucc te mucc yombul nag ci jamono ji ndax am na naar yu wax ne boo bëggee mucc ci xaw jamono fi mu toll ni da dem ba ci kaw asamaan nga teg yéegu braas dem dëkk fa wala nga gas am pax ci suuf te yooyu yaar xam nga kenn mënu ko def di dund kon nag loolu lu mat a leeral la jamono yi nag lëj na tëj ndax fi mu toll dañuy wax jamono ji li ñuy li yës ci àdduna mooy noor buy nawet nawet ak nawet buy noor noor fi mu toll nag ci lañ toll nit ñi ñi nga xam ne ñoo nit diine dañoo bàyyi diine jëm ci tubaab gi tubaab itam bàyyi tubaab gi bëgg a jëm ci diine loolu mooy yàq lu baree bari lu ñu war a xam la te di ko bàyyi xel am na magum sëñ Tuubaa Cheikh Ibrahima Fall ku ne xam na ko diggam ak sëñ Tuubaa ak pas-pasam ci sëñ Tuubaa am na lu mu juñoon bu yàgg yàgg bu agsi tam day mel ni jege na ndax woon na ab yëlbu ko dana ñëw ñetti yoon ci kaw jamono bu ñëw yëlbu bu jëkki bu jëkki bu ñëwee dafay fekk kilifa koo xam ne moo koy dàq ba mu dem wala moo koy fekk ba du dikk bu ñaareel bu ñëwee itam dafay fekk kungus ba kooka bu tinoo ñu bàyyi ko bu ñetteel bi nag nee kenn mënu ko kootee def te bu ñëw day indaale ñett paaka boo xam ne ci lay dog bokk gi bokk gi dox suñu diggante ci paaka la koy dagge wutale ko xaalis moo xam ne da ngay dagg bokk da ngay jaay sa mbokk ngir alal loolu ko ne gis na ko fi mu toll day gàddu taxas sam taxas gi tam da koy miire jàkka yi ba kenn du jot julli kenn du jaamu yàlla loolu itam ku ne am na ko gis na ko mu ne siwo ndox itam da koy indaale ndox boobu nag da koy ture jàngukaay alxuraan yi ba kenn dootu jàng alxuraan kon day mel ni loolu loolu jege sa te ba mu ko waxee léegi ay at at la xaj nag suñ tubaab gi mu agsiw ndax am nañ kilifa gu mat kilifa muy Serigne Mountakha nangul woon ñu tëj jàkka yi ak lu mën a xew moom nangul woon ñu tëj jàkka te Serigne Touba dafa ñaan gum ñaanu ci dëkk bi mbooloo mu fi saxal julli juróom te suñ ko yoon day mel ni ñaan googu tam loolu nag yàlla dimbali nañ ci ba euh, mucc nañ ci xaj na nag daj na Sénégal fu xaj na nag nun euh, ñuy nangoo wéy ci ndigal sëñ Tuubaa yàlla mosuñ ci lu mat a bàyyi xel la kon mbokk yi wax ji dugut ndax sëñ Mourtada ngi ni toog li ci toll li ci li ci topp liggéey sëñ Tuubaa day lu mënta ñàkk tey tey tey tey lu war ci suñ suñ digg suñ digg moom yàq gi am ci jamono ji tam lu mat a moytu ndax ay bokk koy def bokk yi léegi kenn xamatul fuñ jëm kenn xamatul luñ niru waxoon naa ko fii bar nañu jaay seen ngor jaay seen diine ngir alal dama koy répété du ci dellu di ko wax duma duma du ma ci dañ dama jël sama responsabilité am na fi ndax euh, téléphone yi dafa bari dangay wax sa wax ju rafet ñu moom la kenn wala mbokk ñëw félicité la ba noppi di woote waat ñeneen hmm? di jaxasey bokk man ragaluma ko ma yàlla gëmuma ko may sëñ Tuubaa dund ak dee laa yemale ndax xaj na bu ma newoon naa sëñ Sall bi maa bëgg a dëkk yow ëtt na ak ma demee fekk moom du ma am problème kan foofu mooy dàq fii li may wax day leer nañ te xam naa ñoo bokkal pas-pas ñoo ko bokk ku yaakaar sëñ Tuubaa tamit dëgg ci yow du rek dee nga war a yemale ku yaakaar sëñ Tuubaa dëgg ci yow diine war naa jëral lu ne ku yaakaar sëñ Tuubaa tamit dëgg dëkk war naa jëral lu ne te dëkk bi nag ñi ngi koy ñaay ñi ngi koy yàq ngir alal doo nga tax ñu koy def loolu nag nañ ko moytu kuréel yi bari na lool ku ne ngi woote waaye gisoo ci bu tane Tuubaa ci kanam ndax lim am lépp ci sëñ Tuubaa koy def kon nag ku dib jullit ku dib taalibe ndax day mel ni kuréel yi ci bari privé la waaye euh, Touba ca kanam euh, public la ñëpp a ko bokk mi ngi defaral ñu néew doole ñi mi ngi defaral ñi am doole ñi mi ngi defar dëkk bi di ko leeral loolu naa doon naa ko euh, jot li li des ma bàyyi ko sëñ Mourtada wasalaamaaleykum wa rahmatullah jox suñu bopp sëriñ bi rek si sëpp saa te teg suñu tànk yi ci diine na ko suñu wajuree tege woon ñu ko sëñ am sa wax amul leen luñ ñu ci war a teg ne ko suma kilifa ga daan waxee rek na góor góorgóorlu ci li yàlla santaane nga fas yéene di ko def te ya muy tere nga fas ko yéene bàyyi ndigalal yàlla nag moo ñu fi bàyyi tere yàlla it wax dëgg yàlla ab jullit war na koy moytu saxal ndigalal yàlla yit moo gën saxal ndigal kenn ku mën a doon ndax suñu sëriñ ba dey lii dafa dellusiwaat rek lan na fi newoon rek moo fi newoon sëñ Tuubaa fa mu jaaroon ak ñoom tey jii lu gën a leer koo xam da ngaa ànd ak say noonu dem ba ci digg géej gi ñu tere la julli mu jaral la nga sànn sab dar ak loolu ci fekk baax na kooku daal yaakaar naa ne won nañu yoon sancub dëkk it def fi jumaa joo xamante ni foo toll ci réew mi di ko gis kon kooku ku ñëw ne la dama lay tere jumaa mook terroriste yee yore seeni fital ñoo yam te jot naa ne faatu moom benn yoon ak lañ koy defe te lii xew ci réew mi ñu terroriste ci jullit yi ba mu jaral ñu tëj seen jumaa ak seen jàkka yi jëru ko dee rek lañ ci ragal te dee moom benn yoon lañ koy def kon delloo si leen seen bopp seen xel xam ne dañoo jaayante ci lislaam joxe sa bopp joxe sa bakkan saxaaba yi àndoon ak yonent bi de bis bu set seen bakkan daana tuuru ngir taxawal lislaam sëñ Tuubaa jaraloon na ko lu ne noo am joojee ko yóbbu woon ba tey jii mooy sunu noom Tuubaa moom waxtu jot lépp ci loo xamante ni lu jëmul ci diine nee nañ te noonu anuñ jaar kenn mm-hmm. kon nag nañ jëloo suñu bopp te xam ne diine lañ am islam lañ am sëñ Tuubaa dëkk bi la lañ am mm-hmm. nag la mu waxoon rek foofu lay tëje mm-hmm. waxoon nag Abdou Assis weer wii ne ko man de loo ma wax xam naa ne dëgg la waaye lu la keneen wax dëgg la nag yàlla defalu ko kenn wasalaamaaleykum wa rahmatullah